d'amour ci lay nekk nag. maa ngi ci jàmm. nam naa la de. <laughs> diw nga sa tuñ yi ba mu nii de. pine pine ne woon pine moo pine moo si tuñ yi nooy na moom ay. <laughs> noo bàyyi tooñ. ah si tuñ yi daal nooy de wala gisoo loolu yow. wala gisoo dama laa soxla woon. waaw moo tax mu ñëw de. waxtaan bu sérieux la nag. waaw waaw tey dama sérieux sax. da ngay toog déglu ma tata waaw dama bëgg nga wax sa àqulaay taala ba xam man ak yow dañoo ma sekk dara loo xamante ne war na tax yow nga taxaw ne yaa ma xam nga maa yow fi mu ne ñooy wax kenn kenn raxuñu. waaw kenn kenn nekk bëgg yow nga wax sa àqulaay taala. waaw xam man ak yow dañoo mës a sekk loo xamante ne war na tax yow nga wër dëkk bi yëpp ni yow yaa ma ëmbal. ah ah daa fàtte Sali. Sali xam nga man xale bu ndaw laa. waaw tollaguma foo xamante ne damay def dara ba pare di ko fàtte. waaw. cest à bañ àndee sali waaw ba ñuy doog a agsi. waaw je me lañ àgg sali waaw ñu àgg nga ni yow da ngay sangu géej. waaw man ne la man ndox mi dafa sedd te damaa ragal du sangu géej. waaw nga ni ñeme woo ndox. xuma la ñeme ma dama la damaa damaa ragal géej du ma sangu géej. waaw loolu leneen mooy ragal ndox géej yu géej ndox la. Ah, man tontonte bi jaru ko. géej ju géej ju ndox la de. waa léegi. Ah. may ma àggal. waaw. bi waxee loolu ba pare. waaw. ñu dem ci côté tefes bi jënd fa. lakk jën nañ jëndoon. lakk jën waaw. lekk ko. ngay xuloo ka doon jaay naan ko bu la defal soble ba mu ko tuddee la coow coola commencé. waaw ma sax lekku ah, ma loolu kam yaa nga fàttali. waaw xam nga waxee indi wax. waaw moo tax loolu yëpp ay détails la. yooyu maa ko jënd sama xaalis jën yee seble bi lekku may sama xaalis dara wala. mais dama ni xam nga loolu yëpp ay détails la. waaye comme leeral dafa jot te ku ne da ngay wax sa àqulaay taala. bu ma ci bàyyi dara lépp laay wax. day dégg. ba ñu reeree ba pare. allah la wax. waaw. nga ni fanaan. ma nañ fanaan waaw. waaw la lan nga ko ah. fàtte. ko waaw nga ne nga sa kër copine. ngay dem sama kër copine ngay dem. waaw du falaa fanaan ba bët set. waaw nga fanaan ci hôtel ba. waa léegi nag yow Tata léegi nan nga ma mën a ëmbalee. ah aywa ah, ah, yow place bi ba nga xaw a tëdd sama kaw yooyu noonu foofu foofu yaay fàttali ma ma ma sës kaw xaaxa tàngaay yaram mu ne la. am na sangu piscine. ah ñi sangoo ci bi nekkee ci biir piscine bi ngay wax. waaw piscine mooy ma la tafee sama kaw. waaw bi sa kaw. léegi loolu nga jàpp ne ko ni danga maa ëmbal. loolu eh, maa gisoon nga gis nga man yow. sa dof dof gi nga nekkee may ba xaw a yërëm mani sa dof dof gi nga war a nekkee nga war a bàyyi xam nga yow waxee woon nii ndax keroog biñ toogee fee di wax dangaa wax normal kon dangay arrêté li ngay def ndax man dama laa commencé ragal ma gisee nii xool laa am ci yow yaa ngi dégg léegi nag xam nga lu waral wax ci. waaw damaa bëgg ñu def ko ci njëkk ak teraanga. waaw. bëgguma wax bëgguma coow ndax damaa wérul. waaw ah taxal ah. damaa bëggoon. ah gën a rafetee ñu ko fi diggante bi ndax yow doo wax dëgg mën ngaa sos mën ngaa nettali ndax bu dee da dem ba tuug fépp foo romb commencé yëgal yaa ma ma ëmbal awa koo romb ni ko ma ëmbal awa utal valise utal nangam te mosuma sëkk ak yow leen ah. man damay maandu ci say mbir. waaw ah, loolu ba ba gisee ma yaatal ko noonu sama yaay may awa jaara laa ko wax ak waa Paris Saint-Germain hmm. waa mix waa Nice a waa Japon cinq wax ko waa Maroc. six wax ko waa Sénégal. sept dem naa sax côté Tamba Goudiri Bala Kotiari ñooñu laa ko wax. Oh. waaye nga bëgg a taxaw naan damaa wër ñëpp waxuma ko. da nga koo xeeb. li waxaguma kenn. waxu ko kenn waa léegi man maa mënatul a nekk ak yow diggante bi moo mënatul dem ndax man dama laa bëggatul nobbu ma la sentir ma yow xam nga ni ba ma doon sangu ci douche bi sax amoo fitu yoruma bay sekk ak man lenn yow xam nga ne man damaa mat ba kaare. kon sa yii da nga koy arrêté te dama moo nga dimbali ma rek suñu kër bu fi tegati sa tànk. oh yow mënoo bàyyi soo malaise tuuti rek malaise tuuti rek sa xel mi nga xaw a malaise bëgg maa sànni comme sa sungom aw yow aw yow xaaral man dama laa bëgg aw yow lu ma daj si yow lu ma daj si yow yëpp ëmbal bi mën naa bu nekkee du dëgg mën naa dama kaa géntoon mais ëmbal gi doo ko bàyyi. waaw xam-xam dama kaa géntoon. waaw ah, da ngaa géntoon ëmbal waaw parce que man parce que man sama xel la. Eh, xam nga yow da ngaa yabaate ngi wax di sedd ngay gën yow da ngaa géntoon ëmbal bi kon moo tax nga wër àdduna bi yàq sama der. man dama kaa génn dama ne mën naa am ma génn ko parce que yow nee nga. mën naa waaw la yow sama digganteeg yow mënatu la dem yow demal ma dem ma damaa sama digganteeg yàlla nag duñu bàyyante. Ah. sama digganteeg yàlla duñu bàyyante yow mais yow mu naa ba ay dañuy bàyyante mosuñoo bàyyante. da ngay wax lu la neex. waaw yow nag yaay wax lu la neex yow. kon yaa ngi waxati normal. normal la yow lii mooy yow double jeu nga mën. waaye yow dugal fii dugal laajuma la yow dama laa lijjantiwul yow. mais yow waaye da ngay indi yàlla la la ko soof moom li ma daj si diggante pour taxaw fi naa ma danga bàyyi ko maa yow mënatuñoo génn léegi moom nee na du ma bàyyi man génnatuma ak moom dëgg nag loolu bàyyi la gën a yuuxu bi yàlla mooy moom dafa réew kii war nañoo génn ba toll fii bu amee lañ bàyyante amul leen fenn fu ngeen toll nee na nga bokk nga bokk bokk daa jël xuloo mais yow kii daa xam bu ñu toll maa ngi ba bëgg daa ma ne la bokk waa léegi fan ngeen toll kii moom a ñamal loo xam ni ñamal ma lu neex te xëy na ma la ma bàyyi maa la gën a wuyu maa la gën a baax dégg ah, ah, bu ñu génn ndax may noppi génn tuma mu bëgg maa bu ñu génnul man naq ko fii bu ñu génn doo nokk kenn nokku doo nokk kenn bay mais boo dama mën a bay dalay baax par force bay ah, am nga fitte mais waay njool nga risque ne da ngay xeex ak ma ma xeex ba toll fii boobu ba tey bàyyiwul eh, lan la waay yow bu leen ni sonal la ñoo dëkk ak suñuy naawle ngeen yuuxu lenn ka sala man maa mënatul a nekk ak moom léegi nag bañoon li yëpp moo tax ma woo ko ba fii nekk ak moom c'est-à-dire mënatumaa génn ak moom ah génn bañ coow moo tax ma woo ko ba fii lu eh, nekk wax naa ko reetaan sax def naa ko mu ne dama bàyyi léegi man génnatuma ak moom xam nga l'affaire la la xam ki maa moom suñu génn réew mi yëpp xam nañ ko dégguma bàyyil fen ëmbaloo ma. ba ba ba bi la ëmbalee waaw kooku tey xap nga taxaw fi la ëmb. arrêté sa saaga. say morom ma yàlla bay a. ma ëmbalee tey xap nga wax. non yow eh ëmbaloo kenn du tooy xep yaa ngi dégg damaa bëgg nag ànd bi nga yemale ko fii tey comme moo la woo ne la bàyyante nañu bàyyante leen. waaw jàmm na ñooy. sama diggante yàlla du ma ko bàyyi. bu tax ba doo kaay ñëwal ma xanaa yéen ngeen ñamal xanaa ngeen ñamal ma ma bàyyi. waaw ñëwal kan moo lay ñamal. waaw yéen ma ne la maa ngi fi. temps yow da nga lu xew. dara damaa sonn rek. mais soja ma jàpp ba nga xam ne. climat bi la. Hmm. maanaam bi nga ko dégg. bi nga sànq rek maa ngi koy dégg. waaw. Ah. Ah. Mm, mbaa mi ngi mi ngi wàcc daal léegi. waaw ah. waaw d'accord moo juboo day am. incha man juboo day am. moo yow gis nga bi ma mujjee wax ak moom. Mm-hmm. man xam naa ne teew day kii rek. waaye yow la bëgg. man xam naa loolu. Mm-hmm. man ma xam ne yow la bëgg. la bëgg ay <laughs> ay sama sama jigéen ko Henriette na ko. Henriette woo ko ah, Canada ni ko yee. Eh, bi dara xewee dani lépp da koo jël lépp. xam nga li ma la wax. waaw woo ko wax moom. Henriette dafa baax. mooy dëgg moom. ma xam ne yow man man ci kaw loolu sax man bëggoon naa nga waxtaan ak moom. parce que man bi ma mujjee wax ak binam xam naa fi mu la def def fa kenn yaa ngi dégg léegi damaa bëggoon man nag sama côté nga wax ko parce que ñaan naa ko wax naa ak moom pour mu am fu ma demal. yaa ngi dégg moom foofa sax këram la fa la ne yaa ngi dégg keroog damaa ñëw daal xaw ma kenn nekk fi woon sax ñoom dañ ko surxal fii euh, ab convocation. convocation waaw brigade recherche léegi nag. boo ci yem liir ko joxuñu ko kenn xamal ma mais monsieur Ba rek lañ ci def xam nga monsieur Ba wax nga ko sax intellectuel bi ci wër kër gi moom la war a doon bu waaye nee na man la xam nga li ma la léegi nag man woo naa binam waxtaan ko mu dimbali ma jéem a dem wuyul ma waaye bañ na. nee na du dem moom biram pour mu dem wax ak gars yi ah ñoom ñoo bokk même métier mi brigade recherche c'est des gendarmes. am ah, ko yow la ñu woo. waaw mais moom am na fa mën na faa intervenir. waa léegi dama nga wuy ji yow. chef de brigade la waxuma loolu de dama ne yow nga dem nga wuy ji ndax man fi mu ne nii dama ne nataal wax dëgg yàlla man moom lu dëgëral sama sëy moom laay wut waaye fi mu ne lu yolamal sama sëy moom wax dëgg yàlla moom wutuma ko moom lu ma jubaloog bi na ma def ak moom nii yow lan nga def sax oh, man man man lu may man lu may def loo def xam nga ñoom dañuy toog eh, surtout fin d'année bu jubee nii hmm. eh, ay décembre bu jubee dañuy def évaluation comme brigade recherche moom moo yor Thiès yëpp <laughs> dégg ma dañuy woo ku ne. Ah. def yow xool laaj ci koñ beeg yu demee noonu. léegi nag comme man xuloo yi fi amoon ci kër yi yëpp. moytul nit jiitu ma fi muy sëy ku mel ni Thiam mën na faa jiitu waxal ma fa loo xam ne nii dem mooy indi problème. yaa ngi dégg xuloo naa fi moom ay buub ay jabaram yooyu xam nga. te dégg naa ñu naan affaire boobu fi umu defoon doon ko nëpp nëppal mën nañ ma jël laaj naan ma may boroom kër gi moo tax yooyu bu ne moo ma day pirwate yow le loolu du wax homme de loi loo defu du la jël si am na loo def waxal sa digganteeg yàlla waxal loo def man jël ñu ma dañoo indi convocation. buñ la buñ la kii convocation dina jël de waxal sa digganteeg yàlla lan la. te man sax man dama dul monsieur buñ nee monsieur Ba xam nga man man kay maa weex donc rek waaye buñ nee monsieur Ba bu la war a doon Euh, wolof dafa ni ragal péedi day xañe wërsëg te man sama position jël naa ko pare duma ma si tellu gannaaw li xew si kër yéen ñëpp xam ngeen ko umbalewu leen ko bu seen jëkkër il est dans des situations très difficiles metti na situation yi muy dund man sama bopp la may rappelé man très jeune man dama tumbaranke woon sama papa nekk ak man ci biir kër gi di ma càppale lu mu am jox ma sama papa danañ am ay difficulté sax man ma génn am yu ma réglé ñëw jox lu mu am yëkkati na ma caam jàppa ci lii ñu ne sutura nag mais fii moom sutura amu fi non amu fi bu difficulté yi mu ne man mii dund naa ko parce que sama boutique baa nga ne ba ma ko yoree ñëpp ñëw caam caam caam caam ñu dem ci benn instant bi boutique bi daanu ñi daan wax caam ñépp beddi ma bàyyi ma teg ma nele duñ ma sax faale suñu morom bi sax duñ ma nuyu te ñooñu ñu ngi ci biir kër gi tey ñooñu ñoo berse njël njël tey def lu leen neex di togg suñu toggee man suñu ma wooyee man leen man du ma ñëw je ne viens pas parce que dama xam ne kon kii defe na ci difficulté moo tax ñu beddi ko dem togg seen togg indi seeni bagage ñëw indi dama ne man loolu ci biir kër gi laa koy réglé ci biir kër gi lañu nekk fi lañu nekk fi laa koy réglé ma moo tax ma toog ak yéen di leen wax loolu damaa bëgg ngeen xoolaat seen bopp baax ngeen jàppale seen jëkkër bu baax parce que kii ku baax la te gëm naa ne situation bi mu ne billaahi mënul wéy ah, ah. parce que borom xol bu baax la wax ji daal mi ngi noonu jàppale leen seen jëkkër daal mooy wax ci te mooy dëggit te lu fi nga daalalee sax fa laa yëkkatee ndax soo fekkee jéeg buy sëy nga naa ko jàppaleel sa jëkkër moom wax ju yàqu la kër gi nag du parti politique maanaam su war nga far opposition war nga far pouvoir non non su war kër gi dafa xar ñaar ku mu neex far fii ku mu neex far fële man de laa wax fu ma neex lekk xanaa ma toog ci beneen bool ñu ne ma jugal waa tey jii su ma demee ci ñoom ndey yaay fekk ñu togg lu leen neex su fekkee loolu bëgg naa koo lekk damay toog ma lekk donc yow defal noonu bu ko mettil affaire yi méttiwul mën-mën la rek ku mu neex lekk mbaxal su la mbaxal bi neexul nga dem lekk ginaar méttiwul daal mais jàppaleel sa jëkkër moom je pense uma wax yooyu moom am fi place. wax ji ni nga waxee du noonu de hmm. man fa mu féete dama ne xoolal dama koy waxaat ci kaw sama baat ca kaw man opposition laa bokk. bokkuma fële fii. fii mooy opposition te fii laa bokk man te ni nga waxee c'est pas comme ça c'est pas ça ñee suñu toggee um bu fa dem kii ne bu fa dem suñu toggee bu lekk man suñu toggee suñu ma wooyee je ne mange pas caam ñëwal ma ne ñëwuma su ngeen toggee sombi ma ñëw ci sombi gi sombi bi laay naan parce que dama am kóllëre man parce que moo fils est dans des difficultés je le soutiens mais am na ci mais am naa ci droit lan mooy bi pourquoi yow nga bëgg nii loolu alors loolu su amee da ñee dañuy togg nga dem si ñoom la ñuy togg nga lekk ko non non non non c'est pas comme ça c'est pas la bonne position kii nag vraiment sama waay nga sama sama nit vraiment mais nii moom du noonu c'est pas comme ça jàppale sa jëkkër. voilà. même bu dee parti politique bi ñoo nekk parti au pouvoir ndax kër moo ko moom ci kër gi suñu jëkkër moo ko moom ñun ñooy jeeg yi valable yi sëy ci kër gi à part ñun. keneen ku ñëw danga fay dolli ko keneen ku ñëw ci opposition ba nga nekk danga fay dolli ko tonton Thiam waaye nag dégg naa bu baax li nga wax te macha allah sa wax rafet la waaye tonton Thiam ñun suñu jëkkër moo nekk ci kër gi suñu jëkkër sa doom la noo xam nga lan laa bëgg ma la koo ñaan rek laxasu sandis yi ngay indi guddi wala laxasu dibb yi ngay sànni ci poubelle bi wala say boisson yi ngay indi dee ko ci mosal mu mos comme yow gis nga ngeen temps yi dafa nekk en difficulté te am na fooy cofe di fa tibbi waaye dee ko ci ñamal lekk comme moom sa doom la wala ñun suñu ayee nga cof sàkkal ñu tuuti temps yi sa loxo nga soos. mais yow mais man je ne pas ah, man ngay wax. ah man yow da nga maa gis ma yor xaalis ma <laughs> mais man su ma yoroon xaalis naa ko jox bu man su ma yoroon xaalis. ñëpp xam ne yor naa xaalis man ci biir kër gi su ma ko yor naa ko sama doom ji du ma ñëw toog fii di leen taaj naan leen suñu sommee ñu naan moi j'ai pas d'argent. yor nga xaalis ba mu neex. et puis yow de toi moom venant de toi vraiment daf quoi yow bett nga ma trop te <laughs> mais ba ba may sama kàddu yi ba mu ko yëkkati c'était pas destiné à toi parce que xamoon naa ne réponse bi nga am ci man j'aurais pensé que yow di nga waxee neneen réagir neneen jëmale ko ci tonton Thiam mii te ngay wax tey. et ma ne plus sax tonton Thiam dis-moi Thiam dis-moi Thiam parce que yow tu me xool tu me manques de respect si tu me manques de respect ñëw jàkkaarloog Thiam naan Thiam dafa yor xaalis yoruma xaalis je n'ai aucun rotin yoruma dërëm suk ko. yor nga yor nga chaque guddi nga jaar nii dem restaurant wala des fois nga bokk indi yor nga dëgg xam ni yor nga moo tax ma la jël doo suñu jëkkër yor nga looy laa xam ne boo yoree. de eh, eh, yaa nga. voilà problème bàyyi noonu quoi dis-toi que daal man maa ngi sa côté. incha allah waxal bu ni ko man maa ngi koy soutenir bu baax caam maa ngi ci bitti bi quoi. boo ñu toggee moom ñëwal nekk dinaa la tibbal su ma la gisul. avec plaisir. mais su keneen toggee moom. Hmm. la tey tey toggam quoi. keneen de bu toggee boo ko yokkul doo lekk. keneen bu toggee jëkkëram la koy jox. da ngeen bëgg ku leen gàddu yëpp ñu muus. xarit ah, danse nga di. dëgg dama koo wax dëgg ok ndey xam nga man damaa bëgg lu may dugg mu leer te jëkkër woon na ma expliqué na ma mais comme yow bokk nga ci ñi ko gën a jege ma bëgg yow nga expliqué ma mu leer nañ ma xam ban intervention su may defee intervention ci lan dox doxee damaa bëgg nag lépp lu ma la laaj nga tontuma ci fii incha allah leer voilà bindal numéro un bisimilahi rahmaani rahiim ko. Ah. nga jàpp ni Bab moom la amal man kañ maa fa laa jëm ni. allez-y soo li ma ubbee bisimilahi rahmaani rahiim. Hmm. maa ngi sant sama ñaari waa ñaari waajur. di tàmbali nag ci liggéey bi. Hmm. ndax mbiru gendarmerie. Hmm. du ay caaxaan. Euh, binom man wax rek sama digganteeg yàlla man duma ci làq-làq dara amal affaire def leen seen liggéey nu mu waree man dama leen di dolli rek. benn ba argent sale la lay demee argent sale bindal ndax nii mu commencé ni c'est pas naturel ba léegi loo ko laaj mu jox la ko loo wax bala ngaa yeggale mu indil la ko ba léegi ay vingt kilos dibi lay jënd ay lu ne lay jënd di ko indi ci kër gi si njublang day tiriyaande ay nit bindal ok ba lu muy liggéey moom kenn xamu ko man xaw ma lu muy liggéey ba gisuma muy liggéey dara day wuy téléphone wel-wel every day every time bindal boobu trois jox naa la trois. bindal trois. trois. Mm-hmm. day guddi gi lay lay génn bindal trois. guddi gi. sax guddi lay génn. Ah, man moom day fekk ma tëdd. jàpp ko ban heure ko ni ma dafa génnoon démb ci guddi. te ci yow man man gëj naa ay de man man naa ko garaawul nekk sa bopp xam nga day liggéey guddi man ko rek trois bi si des mhm. man damaa ne ci mhm. yoon quatrième mhm. bi noom aw maa ngi nëbboo damaa nekk ci yoon di politique bëgguma lenn loo xam ne daf may distab wala muy muy tilimal sama sama réputation liggéey leen seen liggéey man sama yoon day set wicc bu dee ba moo ma bëgg a faxasaan ngeen jël ko tegee ko nële bu ma kiiwal bu ma def man moom déjà supprimer naa si sama lépp ndax bugguma ëllëg ñu taxaw ma ma man nekk ci milieu ñu naan xool ko jëkkëram di wala euh, parteem dafa lii wala lii wala laa bugguma ko ñuy tilimal sama der loolu moom mm, du ma si ànd jox naa la argent sale jox la triande bi muy def mhm. ak liggéey guddi bi génn guddi yooyu nag sadaxalaaw azim loolu nga ko feeñ moom day leer moom du ma fi ne di ko nëbbal sax ëllëg lépp tuuruwaat sama kaw mm-hmm. du ma ko nëbbal dara dox dox ci wax ci jeex na signéel ma fii comment ma ne li nga wax lii sa wax la n'est-ce pas <laughs> ay eh, bina eh, kii waaw ma yaa wax lii n'est-ce pas sama yaa ci wax waaw am signéel ma fii waaw waaw waaw kaay kaay ma wax la man wax ndax mënuma signé ëllëg a tax comprendre wuy man a mi nom bu du ko dossier bi boo ko yaa ko nar a diisal parce que yow yaa jël témoignage bi lii yaa ko ci def jëlal fii nga signé ni lii yaa ko wax nga assuré li ngay wax nit ki luy génn sa làmmiñ dafa beer mu war a nekk dëgg signal ah. nga signé benn tomb ah mais mais man laaj ma ñu en tout cas yaa ko wax te yaa wax du dëgg. ah mais grave témoignage bi. Ah. bu ñu fekkee ne woo nañu ko tribunal. Mhm. yow di nga ñëw taxaw après su ko defee ngeen expliqué mu leer man su may dem. ah man sama yoon nekk ci ah, ne doo leen ma bàyyi ma concentré wu sama mouvement bi. xanaa déggoo li nga wax. Absa Sall lay liggéeyee n'est-ce pas yaa ñu jox preuve du dëgg day génn guddi. Mhm. danga ngay rek ñu ne ba new fi. Mhm. démb la génnoon ak téléphone bi ak téléphone bu bari bi muy wuyu. voilà léegi loolu la. léegi yow lii lañ soxla woon ci moom ah, man su ko defee ñun dañ xam mm. yaa ngi ci politique bi waaw mm-hmm. jaajëf nga yaakaar maa ngi ñëw dem ah, ah, <laughs> eh, ko ba léegi ma rey man maa a muus yow amul xel tomb laa la may preuve nit di xamee ne maa maa si ne ak maa wax wax naa pare dara du ci dëgg dem rek. ah waaw ah, léegi la bëgg a wax wax léegi yow fi mu nekk nii yow yow mënoo woon rek nga nga dem expliquer comme ñoom monsieur la ñu wax yow lañu kii. ah Ba la ñu wax mais Vieux Ba ñu wax ah monsieur yow lañu man bëgg lu dalal sa xel moo tax man dama lay gunge ñu ànd dem xanaa lu dalal sa xel. man mii. xam nga xam nga fit yow boo nee man man maay maay doomam bu góor. loolu du war a mën a garaaw. police police gendarmerie xamuñu doomam bu góor ki ñu convoqué moom la ñu soxla. yow nii nii pour affaire bi jeex na xam nga pour lan la. waaw ah. maanaam fexe da ngaa ne ci conflit. maanaam ci loi nee nañ yow. waaw ah. fi léegi deewoo affaire bi duñ ko arrêté. kon maanaam yow yow rek yaa war a wuyu ji xam nga deewoo ko yaa ngi fi macha allah ñu ngi ñaan yàlla ñu gën a gudd fan papa nan dem. Ah, yow teel ko occasion buñ ma laajee nga tontu. yow lañ convoqué ma tontu comme ne yow mën a wax. léegi daal xam nga lu ci pexe. waaw bu ñu eggee yow bu lu ñu wax rek yow tontu ne pas mënul wax. bu na ne monsieur Ba diw li tax nga jël affaire am nan ngay def <laughs> paa bu ñu def da ngaa muma a wax xam nga papa dama laa xam dañuy dem pare doo wax. bu ñu gérer situation bi nga ñibbi ci kër gi mel ni du woon yow laa yóbbu woon. billaay walaay taal bi dama billaay.